boo bëggatee ci sëb sëriñ lenn njariñ jox koy njariñ sëriñ ku koy joxi njariñ mu di la jox ay njariñam ku yor yëfam nga yor sa ba noppi laaq nag sa yëf di laaj yëfam yaa gën a dof ndekoon sa du ko xalam bul jay sa bopp bu ko nax xamal ni ke diifu la jox lu dul li ngay jëf ka wax ak dëgg rekk am xoram bu jéema saxleloo jiwul ngir bëgga saxleloo jiwul am xel mu gàtt la wutal njëg te jëndi ay ngërëm kuy moy te bëgg aljana loolee mu bëgg jomb na loo xam ni lii nag jomb na ab dafa koy bëgg ndaxam doxoo te bëgga raw ko jëfoo te bëgga am lu sonnoo te bëgga gën ku